tey ñu dalal fi ki nga xamante se ni tey kenn dootu ko présenté ci jàmm ji muy Ousmane sook di activiste waaye tamit di euh, militant Pastef Ousmane ñu fas yéene waxtaan ak moom tey ci tolluwaayu réew mi ci wàllu politique ak euh, gouvernement bu bees bi nga xam ne moo fi nekk ci yenn ay points yi incha allah bu ñu ko temps bi maye dañ koy jox rek moom Ousmane mu daal di nuyoo Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay ziar. waaw Baye Fadiga maa ngi lay fay nuyoo eh, di la ko delloowaat donc di nuyu sëñ Mountakha eh, di wax ni màggal gi ñu jëm ak safar gi ñu commencé <coughs> yàlla na doon safaru mbégte safar bi nga xamante ni donc xéewal lay doon ci Sénégal donc di nuyu sénégalais yëpp yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers Jammj Infos eh, di nuyu le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko ak tous les membres du gouvernement di wax ni yan bi yàlla na oyof si ñoom ba Sénégal bu ñu bëgg egg ñu egg fa di wax ni noonu la ñuy ñëwee ñëpp di nuyu communauté en première bi mu jigee surtout di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Ousmane dañuy ñëw léegi ci premier point bi nga xam ne daanaka sax junj ko di nuyu le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec le premier ministre et son premier ministre euh, usman Sonko tey ñu gis mu am ci gouvernement bu bees bi yenn nomination yu bees yi nga xam ne tey ñu ngi gis ñi nga xam ne ay rappeur lañ di ay artistes bokk ci réew mi ñu jox leen yenn post yi nga xamante si ni tey muy ku si mel ni nit dof ak euh, kilifa. tey nomination boobu yow en tant que jeune en tant que tamit euh, ki nga xam ne tamit patriote nga yéen xeex ba toll fi ngeen toll nomination boobu nan nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. waaw donc euh, tout d'abord nomination yi duñu nekk euh, lu dul rafet rafetlu ko. parce que premièrement ñu ko jox ay sénégalais lañu. ay sénégalais de souche yoo xamante ni si réew mi lañu juddoo ñëpp xam leen fii mais surtout ñu yàgg xeex pour le Sénégal. et nekkuñu avec Pastef lañ commencé xeex et que ñoom bokk nañu suñu ñëkk participer sax à levée de conscience avant Pastef parce que ñoom créé nañu woon seen mouvement Y'en a marre mu nekk un mouvement euh, bi nga xamante ni yàgg na fi xeex injustice bi yenn maa sax le Pastef kon yaakaar naa ne da ciy baax ñuy def genre rétrospective pour fàttali nañu loolu noonu donc su ma ñëwee ci li nga xamante ni moom mooy ñaari nit yi nga xamante ni ñoom ñoo jur coow loolu noonu mooy ki nga xamante ni moom mooy euh, kilifa euh, donc bu Y'en ak ki nga xam ne moom mooy Nit Doff ci nomination yi ñu leen jox man dama jàpp que nii lu ñu mériter la euh, lu war la à ce ñu def ko parce que lu tax mooy euh, poste yi nga xamante ni moom lañ leen jox en su leen ko joxul da nga koy jox keneen koo xamante ni mérité ko wala boo xamul li nga xamante ni moom lañ ko jox parce que on parle de culture donc euh, FDC yi démembrement ministère de la culture la donc li nga xamante ne aussi moom mooy grand théâtre aussi la même chose kon foofu boo fa jëlee jox ko ay artistes ñi nga xamante ni xam nañu culture xam nañ lu jëm ci wàll boobu noonu kon yaakaar naa ni jox nga euh, def nga l'homme qu'il faut la place qu'il faut te ñun loolu lañ yàgg di réclamer parce que genre poste yi nii ñan lañ ko daan jox ay politiciens ay nit ñi nga xamante ni en réalité xamuñ ci culture dara ñëw gérer ko mu indi yenn polémique yi léegi nag boo ko joxee ki nga xamante ni moom loolu loolu mooy métier te wareefam aussi ci loolu la nekk yaakaar naa ne mooy def nga li nga xamante ni mooy li nga xamante ni moom la Sénégalais doon xaar dafa mel ni nomination de Pape ko ko comme aussi même cas bi la avec euh, Kilifeu ak ñu Dof dañ koy rafetlu d'autant plus que le président de la République celui qui nomme les postes civils et militaires kon bu yëkkatee moom ci dooleem ak ci pouvoir am jox si ñooñu yaakaar naa ni eh, te nommé wuñ leen ministre coolu li muy bëri bëri yëpp PCA la doon nommé kon yaakaar naa ni euh, ñun dañ koy rafetlu di encourager le président sur ce parce que ñun wóolu nañ ko moo tax ñu jox ko réew mi tey moom aussi bu wóoloo nit mënuñu lu dul ànd ak moom ci wóolu bu mu ko wóolu ñëw jàppale ko ci li nga xam ne moom mooy combat boobu noonu. mais pourtant tamit dañoo gis ni maanaam ci gouvernement bi nga xam ne moo fi nekkoon muy le gouvernement Macky Sall bi nga xam ne moo fi nekkoon tey amoon na yenn artistes yi nga xamante si ni joxoon nañu benn post ñu proposé woon benn poste ñu bañ ko. est-ce que tamit nekkul ne nit doof ak kilifa la ñu àndoon ak waa Pastef di xeex moo tax ñu jox leen poste boobu noonu. waaw euh, man je pense pas que ni loolu la te yaakaar naa ne démb rek. Euh, kilifa mu ngi koy mu ngi koy nettali parce que man donc euh, Y'en a marre ñu bëri dama leen xam au-delà de donc xeex yu ñuy xeex ñu si bëri dama leen dama leen xam boo xoolee kilifa démb rek mu ngi koy rappelé ne na moom li nga xamante ni moom mooy liggéeyam ak PCA bu ñu ko jox li lu muy liggéey foofu noonu mën na fay ñaari yoon salaire bi nga xam ne moom la fay fekk kon yaakaar naa ne nekkul xaalis moo ko fa yóbbu mm-hmm. benn ñaareel bi aussi nekkul lu mu doon ànd ak parce que bu fekkoon ànd ak waa Pastef kilifa am na ñu ko gën a jege ñu ñoo xam ne ni Ousmane Sonko la ñu àndal te pourtant joxuñu leen poste yooyu noonu kon moom suñu ko joxee man dama gëm ni ne loo xamante ni tey yelloo ko d'autant plus que tey ñu euh, doon yàgg réclamer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme que nag loolu la ñu yàgg wax tey même fekkee récompense am na ci tey même bu fekkoon que ni dafa ànd ak ñoom Ousmane Sonko moo tax ñu jox la loolu noonu man dama jàpp que ni c'est normal parce boo xeexee ba jël réew ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci combat bi et que ñu yem les ñu am les mêmes compétences ak ñi nga xamante ne am ah, jàppuñ ci combat bi mais booy récompensé ñu ànd ak yow ngay ni nekk boo sañoon da nga naan man ñu waxee bu ko waxee ko waxee bu ko defee noonu mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yóbbu foofu noonu sax la ñuy doon si ñoom parce que naan ñii ñoo yóbbu Sénégal foofu noonu te ñooñu noonu nag ku ne boo boo ñaan ñaan nga yàlla bokk ci kon nag loolu noonu encore une fois sas la te ñëw aussi euh, ils ont compris ça que ni euh, sénégalais yi dal leen sas te yaakaar naa ne si dynamique yooyu noonu la ñuy continuer juste coow li nekkul lu dul kilifa dafa am lu ñu ko doon jiiñ euh, trafiquant de faux billets alors que ñun ñëpp gis nañu que ni fu dossier boobu noonu mujjee parce que kilifa il était contre Macky Sall gis nañu acharnement ak yenn sorte yu mu doon def ci porte parti pouvoir bu fi nekkoon mais tey bu fekkoon ni gars yi am nañu virgule. tarfatal ay na ci kilifa duñ ko may dara mais lan moo tax dossier boobu noonu justice classique sa sans suite bu fekkoon bu fekkee kilifa moo def parce que si ñetti chef d'accusation lañ ko doon toppee association de malfaiteurs tentative donc euh, de de de tentative donc de création de faux billets euh, donc tentative de création de faux passeport ak li nga xamante ni moom mooy euh, escroquerie mais ñetti chef d'accusation yooyu benn bu ci nekk délit la bu fekkoon loolu ñu koy toppee am na dinañ commencé dinañ dem. son casier judiciaire mu nekk li nga xam ne lu donc lu vide la lu vierge la kon encore une fois loolu day wane que ni lu ñu ko doon jiiñ amul et que nag niñ dañ la sañ nañ gis Fadiga wala sañ nañ gis Ousmane Sow ni ko dañ la soupçonné ngay def nangam mais bu nee ba justice gis ni loolu ñu la doon wax amul mais yaaxeeti loolu war laa mën a tere asaka ñu fal la dara d'autant plus kilifa sénégalais la ah d' accord ñu ngi lay jëfal tey ñu war a dugg suñu deuxième point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 nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il faut ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm